na ne sëriñu caga ji ah xelam na nekk aji saar tàmbu caga ja walaay sonko yàlla nañu ko yàlla fayal ay waay sénégal xam leen sonko ay sénégal kañ ngeen xam sonko yàlla nañu ko yàlla fayal ay waay sénégal xam leen sonko ay sénégal kañ ngeen xam sonko ndaw ñi nag am na ñu bare bare bare bu dee cent quatre vingt quinze pour cent yi xam nañ sonko mais pa yi ñoo umpale sonko sonko nee na woon système bi amna na ñoo xam ne ñu mbubboo ay sëriñ te ay spiriti système lañu Bassirou daal ne am na koo xam ne jamonoy Senghor dafa créé woon parti ko Hizbullah ne day nangu góor gi force loolu moom xam nañ ko ku dëng ki ba Senghor jàppoon ko fi nee na bu demee Israël day daan cible la dóor la ñu jox ko ay milliards mu ñëw bu demee Palestine nag jullit la jox ko ay milliards mu ñëw kooki nag moo woote Kaolack gàmmu caga ji inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Tiwaawan gàmmu ngeen dundal dundal ngeen guddug yonent bi kaa wax dundal geen guddug yonent bi waaye am na ci koo xam ne Tiwaawan gàmm nañu Medina baay gàmm nañu mhm. déglu ma Daaru Salaam ba nekk sa Ñooro gàmm nañu waaw Dakar ñoo ñëwul sax gàmm nañu gàmm nañu waa Touba gàmm nañu waa ñu ñuy taxaw ñuy wacc pacal ak naan waaw tàccu leen ñoom ñoo amul ab gàmm mooy gàmmu caga ji waaw kay ah, am nañ droit wax gàmmu caga ji ne gàmmu caga la soog caga ji waaw ndax gis naa sëriñ ba leen di conférence al daan na jigéen jum neex bu jigéen jum neex nga yor sa taanu rëy waaw kay ndax jaay fonde waaw kay nee na bokk ak fonde bi ñu lekk na nee na fonde bu mel ne waa géej waaw kay moom ci sëñ bi moo wax loolu am na ku taxawoon sax am na moom fu mu ne nii mën ngaa xañam jigéen jigéen tay mm. ak ko tay fas ko tay ñu ngi koy ñaan yàlla ñu tay waaw man waaw man daal en tout cas daal man daal li ma waxoon naa ko ma ni moom nañ ko may tay mu fas ko tay mu mu mu ñibbisi këram tay kam mu ren gii tant tega ji gis naa ko inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun tant bu ne gis naa ko balal ci tant caga waaw eh, yàlla nañu yàlla doole dimbale waaye seen sëriñ bi caga ta mën a wax caga te di saay saay yow boo nobee doomi jàmbur ñu gën koo jël bañ koo mayee jàmbur yow yaa ko gën a gannaaw xam nga ndeyam ak bàyyam kay waaw moo gën a yomb yow nam nga waaw xam nga ndeyam xam nga bàyyam ah. loolu moom c'est c'est c'est vraiment moo c'est c'est c'est nangu si loolu waaw vraiment vraiment loolu ma laa jow voilà guro hmm. ko takkal tey balaa ma ñibbi ñaay tubaab mii doy na man seere naa ko waaw kay seere naa ko man noo ko yor na ca baas ba ne jigéen du ñëpp kum neex nga jaay fonde te Adji Sarr jaay na fonde Adji Sarr am na wang kon nag mel na ne sëriñu caga ji ah xelam na ne aji saar <laughs> tàmbali caga ja